ñu wax ne ko def des na ko mbugal des na ko musal ci mbugalum bàmmeel waaw loolu de bokk na ci yoo xam ne nit ki moo koy def am yoo xam ne taw tawfeexu suñu borom yi nit def li ñuy wax ribaatu bu jihaad di am barab boo xam ne noon yi dañ koy jaar di songu jullit ñi nga taxaw fa di ko wattu ngir yàlla loolu sax na ne ku ko def boo faatoo dana mucc fi ni bàmmeel ku faatu ci nekk shahid nga xam ne ci toolu jihaad la faatoo kooku it eh, def su ko fitnaal ci bàmmeelam kon nag it lu sax ne ku mokkal suuratu mulki ak di ko jàng saa eh, bu dëggee ci bàmmeel danañ ko musal ci mbugalum bàmmeel bokk na ci it koo xam ne jàngoroy biir moo ko xam ne wéré di xam dal biir bu ci metti ci biiram la ba faatu loolu it sax ne eh, ku ko def dee su ko ci bàmmeelam naka noonu ko faatu jullit bu faatu ba cëggub àjjuma mbaa guddig àjjuma yàlla dana ko musal ci fitni bàmmeel yooyu daal ay jeexeet yu war la ci wax yonent bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na seetaan football ci télévision ak di ñaanal ñiy football ba bu ñu am pola moo xam ne bu fekkee nit ku koy seetaan yàqalu ko yenn farataam euh, dugalu ko ci lu xaraam muy gis awra jumbur sa gis wala yu demee noonu suba day jàpp ne fara fa nag dëkkee ko mbaa mu dox sa digganteeg say moom lañuy ñuy tere amaa di ñaan nag ñu bañ moom bu fekkee ne da ciy jox it ñaan ab jullit suñu borom màggam geek daye ji mu am sa loxo di ko ñaan war nga ko ñaan lu la amal njëriñ ab jib gañ amul benn njëriñ ab jullit euh, du fooyee ngànnaayam te ñaan nga naay la ñaan ci yàlla mucc ci mucc ci musiba yi àdduna ak alaxira yi ñaan ci yàlla texek àdduna ak alaxira moo gën di ci ñaan am am po ne bu sottee amul benn jëriñ mën naa am sax loolu nga ci ndax am na nu muy deme ndaw ñi dëgmal ko bàyyi seen liggéey bàyyi seen njàng te boobaa lor lay doon wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na nit a ñi koo xam ne dafa ëmbal jigéen joo xam ne moom moom ñoo bokk benn baay nga xam ne mënu koo takk nee ba tax ñuy xalaat yàq ak boobu muy laaj lu ci àtteb lislaam def nañ ñaawteefu rëy njaalo ci boppam ñaawteef la waaye njaalo ci diggante ñoo xam ne dañoo araamante geneen ñaawteef la waaye lu ci mën a xamee nag doom jooju soosu moom kenn ci ñoom amul sañ ci rey ko bakkan la boo xam ne lañ def ñoom ñoo ko dafa yor nekku ci bis ñu reyee doom jooy beneen bàkkaar dolli ko muy ñett wallahu taala alam mbokk mi laaj koo xam ne da doon julli gi ay rakka bi tàmbali fàttee béral yalu fatiha bi ba mu jeex ci saar wa rek mu fàttaliku ne dafa yalu fatiha bi nu muy def waaw ku fàttaliku ak yalu te rukkoo amagut da ngay dëpp jàngaat loola moom fatiha la yalu te waroon ko béral kon da koy baamu béral ko bu noppee toj ci te bu jullee bésal ba mu sujjóot ba'da salaam wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ku amoon soxnaam nee na ñu tàggoo biñ demee nag lu toll ci juróom weer nee na ñu xamal ko ne soxnaam dafa am bu muy laaj lu war a doon taxawaayam ci moom waaw lislaam xam nga li mu santaane nit bu fasee soxnaam it soxna sa daa war a toog fa mu doon sëyee ba idda ji jeex fu muy dem mu door dem ak lu mën a xew bu fekkee ne moom diggante ba mu wax ci ëmb feeñ kon dafa mel ne bi muy bàyyi soxna si daa fekk mu ëmb su boobaa nag doomama jigéen nag boo ko fasee te fekk mu ëmb féeg idda ja jeexut féeg ëmb ba indiwut maanaam féeg amul doom idda ja jeexut te moom moo ko war a dundal ndax ëmb doom ndax doom kon moo war a dundal soxna si ci këram la war a dëkk bu amee doom idda ja door a jeex wallahu taala alam mbokk mi laaj nee bayit wi nekk ci matlabu shifaay la bëgg ku ko ci defal ak leeral waxfir lana wa aafina bi aafiya takunu fi daarayni xayra aafiya waaw bayit ak ñaan la suñu borom sëriñ bi di ñaan wa taala lana mu yàlla nag nu jéggal wa aafina yàlla nag nu may jàmm yàlla nag nu jàmmal bi aafiya ci joo xam ne takunu dina nekk xayra aafiya di lu dul ràpp jàmm ju dul jeex fi daara yi ne ci ñaari kër yi jàmm joo sax ba faw fii ci àdduna ak walla xera ku may waxfir lana wa aafina bi aafiya takunu fi daarayni xayra aafiya wallahu taala alam mbokk mi laaj na na jigéen joo xam ne dafa am ku ko way juram bëggoon a may nee na mu ne bëggul kooko tax way juróom mere ko nanguuruta jéem ci moom dara muy laaj luy atteb ci loolu waaw way jur de loolu du teggi ci moom warte fi ko waroon ci doom ji ñàkk déggoo moom ci mu ko bëgg a may mën naa am sax nag bu fekkoon la ko war dëgg dëgg def na ko ci doom ja ba mu juddoo ba toll noonu mu toll mbaa lu jiitoo juddoom xëy na du ko may kum ko war a may muy gàntu waaye lu mën a xew moom loolu du teggi la ko waroon ci moom ci war koo taxaw war ko aar war a fexe mu mucc ci sa war a boo liggéey ndax loolu lu yàlla gàll ci awloo sam la kon gëstu ba xam lu tax mu gàntu waaw léeg-léeg gànt yi doon lu jaadu kañ ko bëgg a may xëy na matut lim doon euh, lii yonentu la Muhammad alayhi salaam wax ne bu bu ngeen di wut borom kër na ngeen ci seet loola ndax loola nga ca bu ci loolu nekkee nag naxtaan ko wax ak moom ba mu nangu wan ko li ci ne xam ko ne waajur du bëgg a lor doomam yu mel noonu euh, bu fekkee yar bu baax jiitu woon na ko du ko bañ waaye lu mën a xew doom boo ko bëggee maye mu gàntu it du tee yaay day baayam warteef la waroon wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na jaxasoo yi diggante góor ñi ak jigéen yi ci oto yi ak ci jaay yi ak ci xew-xew yi ndax dagan na waaw jaxasoo ñoo xam ne de ay jàmbur lañ moom daganul ci diggante góor a jigéen lu dul ngànt loo xam ne leneen mën tàmbul loola yooyu mu wax yépp nag du ngànt waroon nañu mën a nos dem nga dikki ba nga xam ne nii jaxasoo du am ci oto yi du am ci sareet yi ñu war yëpp mën nañu fexe ba bu ur ca ba du ci am loolu moo jaadu naka noonu it jaay ak xew-xew yi am yëpp rawatina bu dee xew-xew bu ñu tuddee xew-xew diine moom lay tax mu mu doon xew-xew diine moom ñu ñu bàyyi ci xel woote xew-xew diine noppi jaxasoo ba ci anam goo xam ne jaaduwut te du ngànt su boobaa na moom jumaa ji nga xam ne fa lay jullee waxtu juróom bu àjjuma dikkee da ko fay bàyyi dem ci yeneen jumaa joo xam ne la tax mu fay dem nee na fa lay gën a teewloo daal te xutba bu dañ koy tekki ci wolof nee na julli ci jumaa de jumaa yëpp baax a jullee li ñu bañ rek mooy dem ci jumaa dem ngoo xam ne farfarloo moo la fa yóbbu waaye bu dee jublu goo xam ne jublu gu sell la ni mu waxee ni nga xam ne xëy na na muy jariñoo ci bu jullee foofu du ko jariñoo ci feneen loolu sañ na ko baax a baax wallahu taala mbokk mi laaj nee koo xam ne dafa ñëw ci jàkka jamonoy timis waaye muy jàkka joo xam ne nag buñ noddee timis dañuy nekk fukki mil door a julli ndax sañ naa def tahiyatul masjid eh, ci madhabu alimam malik radiallahu anhu eh, njëkk timis amul naafila am dañuy wax ne ginnaaw julli takkusaan ba ba ngay julli diggante boobu naafila amu fi te tahiyatul masjid ci naafila yi la bokk kon foofu kenn fi naafila ci masjid bi loolu mu wax nag ne ñoom dañuy nekk fukki minute door a jël timis lu am solo lañ war ko bàyyi xel yu bari dañoo jàpp ne timis moom su nodd gi daanoo rek ca saasa saasa lañ war a taxawal julli ga noddu woote la nit boo ko woowee te xaaroo ko day mel ne woo ko amul njëriñ dëgg la timis waxtoom yaatuwut bëgguñ ñuy xaar lu yàgg ginnaaw noddu waaye dañuy wax nag ne su noddee ba noppi nit ki man fee laab sol ay yéreem maanaam bu jant bi sooyee jant bi sooyee nit ki man see laab bu dee moo xam laab bu ndaw wala gu mag masa mën a sangu sol ay yéreem ñu noddu li xam julli diggante boobu dañuy wax ne koo xam ne fekk bi bi bi timis bi jot bi jant bi so fekk na yëpp nga def ko sañ ngaa xaar lu toll noonu dooru julli loolu nag fukki minute yooyu ñu wax euh, du sori loolu moo tax lu mën a nekk la rawatina bu fekkee ne xaar googu dañuy xaar ay nit ñu ñëw di julli si woo nit ñi may leen ñu mën a waaj ñëw julli si waaye nodd nodd gi daanam nga daal taxawal julli ñi nga xam ne ñu doon ñëw bala ñoo agsi fi julli salmal loolu moom santaane wuñ ko noonu wallahu taala alam mbokk mi laaj ne jamono yi nu toll xaalisu CFA bii yor eh, nisaab bi nan la toll waaw nisaab de ci xaalis bu mu mën a doon da xool or bi nga xam ne or bu raxut dara la mooy vingt-quatre carats nga xool gramme bi ñaata la jër benn gramme bi boo ko xamee nga ful ko juróom ñett fukki yoon ak juróom moom toll rek loolu mooy nisab bi jamono yi mu toll nii tey jii gramme or boobu nga xam ne mooy vingt quatre grammes mi ngi jar trente cinq mille neuf cent soixante dix sept virgule soixante sept loolu nag boo ko fulee juróom ñett fukki yoon ak juróom dalay jox trois millions cinquante huit mille yu teg tuuti kon jàppal ne ku am loolu tey jii am na nisaab bu ko dencee at Euh, moom ko denc ko ab asaka dana ci war xaalis bu mën a doon nag ci réew mu mën a doon noonu lay def ma xool dal xaalis booba garaamu or bi nekk vingt quatre ñaata la fay jar mu ful ko juróom-ñett fukki ak juróom wallahu taala alam mbokk nee na waa joo xam dafa nekk Europe nee ñuy xeex neena mu dugg ci di atte ndekete ay góor jigéen lañ ba tax nag ñoom góor jigéen ñoom doon atte ñu kii daal daf leen di jàppale kon xëy na tax ñu fexe ba jël ko ci barab mu fay liggéey waaye barab boobu it entreprise la boo xam ne góor jigéen ñoo ko moom muy laaj ba xam moom liggéey ci foofu dagan na wala déet waaw bu fekkee ne luy dooleel góor jigéen ñi daganul ci moom ndax am nguur jigéen daganul lépp lu koy dooleel mbaa mu di ko dëgëral mbaa mu di ko ar ab julit wuru ca liggéey wallahu taala alam laaj nee na bay bi sëriñ bi wax ci aljawharu nafis wax ne wa qaala qawmun kulluhu qabixu wa huwa fi madhabina saxiixu mu ne loolu mu wax ne am na ay nit ñu wax ne eh, lu bon la te loolu mooy li wér ci sunu ngir mu ne masab boobu ndax masab maali la jublu wala lan waaw bay yooyu de ngir ñu leeral ne dafa bokk ci li sëriñ bi tuxale ci ñeneen ñu ko waxoon ñu ko jiitu te wax na ko ci biir wax ji ba mu tàmbulee ne waaye nag na ngeen xam ne fen lenn ci boroom xam-xam yi séddale na ko juróomi xaaj lakinnahu li xamsati l aqsaami qassamahu baadu dil ahkaami fa qaala jaamian lahu fi adadi sittati abyaatin bi nazmin jayyidi nee na ko wax loolu da koo dajale ci juróom ci juróom benn mooy juróom-benn bayit yi ci topp li xam sa ci la xasaam la tàmbalee ba juróom-benn bayit yi mat ci la séddale fenn yi mat boroom xam-xam boobee nag tekke ne am na nag aw nit ñu wax ni léppi fenn lu bon la te loolu mooy li wér ci dunu mazhab ba ko wax ci mazhabu Malik la bëgg a wax Malik dañ ko masa laaj ne ko waaw kuy fen ngir nangam mu ne laa xayra fil kadib leen fen aw yiw newu ci kon fan yëpp bon malik bay lii nag ñu ngi ci nasiha bu ñu wax nasihatu bat li jamii ahli kunt nga xam ne Cheikh Kunti radiyallahu anhu moo ko moo ko taalif bay li am na fa la ko sëriñ ma ngi it ci beneen téere bu ñuy wax charxul euh, yawaqit euh, fi man tama li aalimil madina euh, bay yooyu it am na fa maanaam am na ci téere boobu téere boobu nag ki ko taalif ñu ngi tudd boroom xam-xam faqih maliki bu mag la woon euh, tuddoon euh, abul xasan ali ibnu abdul wahid ibnu mohamad as-sijil maasi mu euh, nga dëkkoon algérie moom itam ci téeram boobu bay di ma nga fa wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa dem ci ab dëkk fa ab doxandéem amut fu mu fanaan xamu fa kenn ndax sañ naa dem ci jàkk ja waaw ci mazhab Malik ab doxandeem sañ naa fanaan ci jàkk bu amul fu fanaan waaye bu dee koo xam ne na ci dëkk bi la dëkk moom mu bàyyi këram dem ci jàkk ji la moom nammaal mu ne kuy laatikaaf wala yu mel noonu wallahu taala laaj nee na e, sëy boo xam ne lislaam da koy tere dañuy wax ne bu wéet xasee am araamante da cay am nga xam ne góor gi dootu mën a takk yaayi ku jigéen ki dootu mën a takk doomam ku jigéen ci dootu mën a sëy ak bàyyi góor gi dootu mën a sëy ak doomam wala maamam mu ne ndax nag bu fekkee ne day wér daa amagut ndax day araama ba tey waaw ci masab Maalik day eh, bu ëpp say amee doonte sey bu jaarul yoon la waaye wuute am na ci am na ci waroom xam-xam yu ñuy wax ne sëy bi dagan na su boobaa day araam mook sëy góor ñooy am lu mel ne euh, ku takk soxna euh, kuy armal takk soxna ak li ñuy wax ni wala jigéen ju maye yooyu sëy yoo xam ne dañ ci wuute muxtalaf ala fasaadihi la muxtalaf fi fasaadihi bokkute yi nga xam ne mujma ala fasaadihi moom ci ne Eh, sëy bu baaxul lu ne takk ab juróomeel lu mel ne takk nit koo xam ne dafa araam dafa dafa laa araam yooyu moom dañ ñëpp dëppoo ci ne dafa xaraam bu dee bu mel noonu moom jaxasoo mooy tax mu mu mu mu ak ak araamante am ci waaye bu dee sëy boo xam ne nag ci mësëb bi dañ koy tere waaye am nañ ñu wax ne dagan na ni ki sëy yooyu ñu tudd léegi su boobaa moom eh, fas gi rek day araamal kon ku takk soxna nikaaxu sir wala nikaaxul mutaa la wala da nga daa arma ba noppi takk soxna wala daa takk soxna soxal jigéen jaa ko may boppam boobu say baaxut mu jara du fas gi bu la may jigéen ja nekk sa soxna kon doomam ak yaayam araam nañ la yow it euh, moom it mënta mënta seet bàyyi gi wala maamam wala doomam wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na nit koo xam dafa tukki woon jékki-jékki woote ne faatu na te ña ko waxit gisuñ am néew dañ ko foog rek ndax loolu dañ cee sukkandiku a kañ lañuy mën a toog ba jàpp ne faatu na waaye yu mel ne moom te amuñ feek amuñ ci leer moom waruñ cee sukkandiku eh, nit bu fàddoo dañuy nekk li ñuy wax muddatu taamir mooy diiru gudd fan daal dañuy jàpp ne fu mu mën a nekk bu amee juróom ñaar fukki at ak juróom buñ xamu ci moom dara mën nañ ko jàppe ku faatu miraas alalam ay soxnaam it ñu tàmm ñu ñu tëñ ji soxna yi nag bu fekkee ne moom mënuñoo xaar loola dem na te bàyyiwu fi dara lu mën a yor te wala boog ñoom daal mënuñoo muñ ba booba sañ nañoo dem ci yoon ñu tas sayu moom waa dañ koy tas mu idda ko iddee ko euh, waaye alalam moom kenn du ko miraas lu dañuy xaar diirub gudd fan mooy fu mën a nekk am na juróom ñaar fukki ak juróom maanaam fekkoon am na juróom fukki at dañuy xaar ñaar alam mbokk mi laaj nee na da dégg ñuy wax euh, dañuy añ ngénte def tuddu biir néeg nee muy laaj ba xam ndax buñ defee tuddu biir néeg dañoo war a rey xaram wala déet waaw li lislaam santaane te te mu sax ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa mooy nit ki bu amee doom te amum xar wala mu yaakaar ko bëgg nañ mu nekk ba bis ba delsi mu mu rey xar ma tudd doom ja mu rey xar ma tudd doom ja nag yaakaaru ko fenn it bu doom ju juddoo mu tudd ko su ko yaakaaroon ba bis ba ñëw far yàlla dogal lam yaakaar amut it na tudd doom ja loolu mooy lislaam xamut ak ngénte eh, juróom-ñaareelu fam daal ci Malik bari su ko weesu te ki ñuy wax mu àgg ci sax mooy ki nga xam ne am na xar wala mu yaakaar ko wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na nu ñuy déggee bayt wi sëriñ bi wax ne kullu muridin bi yaluudu yasaadu wa innahu min al mu mubaadu sëriñ bi wax ne képp koo xam ne am murid la boo xam ne dafa dafay wéeru ci man dana texe te euh, lor yi dañ ko dañ ko ciy sori loolu la wax wax leer la li mat a bàyyi xel nag mooy baat yi mu wax lan la sëriñ képp koo xam ne ab murid kun waxoon nit ku ne da ngay doon am murit ba noppi wéeru ci moom foofu li ma ta leeral mooy murit mooy lan kan mooy murit ak lan mooy wéeru am murit sëriñ bi jàngale na ko feneen ci barab boo xam ne murit mooy kan am na wax fu ne man laa yamliku shay'an wa laa yamliku shay mooy koo xam ne du am dara lépp lu am yàllaa ko moom fa yàlla santaane képp lañ ko fay def dara moomu ko mooy bakkan moomu ko yàllaa ko moom bàyyiwul xel ku yàlla mi ko moom wax naa feneen di am murit du bëgg ci àdduna lu dul ngërëmu yàlla boroomam kooku la sëriñ bi wax kooku nag bu ñëwee wéeru ci sëriñ bi wéeru it mooy lan mooy loo wéeru lu ne nu mu jëm noonu ngay jëm kon ku yooyu ci sëriñ bi li sëriñ bi bëgg di ci woote ci loolu ngay nekk loolu na ko ci nekk taxe moom kon ku doon am murit yor melokaanu murit te ànd ak sëriñ bi li muy tere lépp nga wax ko li mu digle loo ci mën nga def ko da nga taxe te da mucc ci wallahu taala alam